yow bu bu jën kayre bu muudu anta daanoon jën kayre sëñ bi dootoo xajati ci dëkk bi de. waa euh, mooy li rek jën kayre mën nañu koo daan lamb lu mi ah léegi yow. waaw nee na moom lamb lu mu ci bëgg mooy am. te yow xam naa ne lamb li nga ci bëgg yaa am. yow tee ngaa ngemb benn mbër moom mu ngemb benn mbër. non non du ma la wax yow lamb lu lu ci mam bëgg. moo ci am. Mm-hmm. su mbër hmm. ñoo ci man man xooru làmp bi victoire nekk ci lokom dina ko wax lu leer victoire bi nekk ci lo sa lokom mais mun nga fexe ba victoire bi nekk ci lokom il ñaan yàlla may ma déju ma gën a laaj question ñaata fan nga koy liggéey yow may ma sama liggéey du passé beneen fan bi déju avant combat bi deux jours avant combat avant combat bi man wax yow victoire bi match victoire nekk woon ci lokom avec moom combat day ne combat bi moom def. moom ak toujours prêt la. moom ak toujours prêt <laughs> victoire nekk woon ci loko Macha Pereira. ah mais dafa des woon deux jours. Macha ñëw man génne ko sacrifice di moom da nga gagné. en jour lamb bi jour lamb bi man dem ci kër defal ko sangaata taal ko sandal génne ko ci mbër bi di moom yaay am victoire combat bi du yàgg moom di amin yara bi mu dem. Abdou dafa siffler rek mu jàpp waa doo ko mu daan euh, kii nii euh, euh, nu mu tudd hmm. kombam dafa egg bosam man gis naa victoire moom bu yàgg. moom Alim Seyde. Alim Seyde man wax ko moom danga am victoire. jou kombam encore man dem defar ko liggéeyam sang ko li moom dema da am victoire mu dem ba am victoire. Hmm. combat Sa Thiès encore am na ñu ma woo ay DJ bu nekk tuuba sama journaliste kam moo gagné man di moom ah combat bii kay Sa Thiès dinaa gagné am na ñu ma woo laaj ci combat ay ñoom ay bala Gaye and tout combat boo xamante jéggago am na lu bari boo xamante ci làmb du ma wax. mais yow wax nga ma Balla Gaye day daan Bombardier te làmb ji am làmb ji amul. Prince xanaa lu tax lu tax gisoo làmb ji am déglu ma làmb bi dinaa am coronavirus bi. moo nekk problème bi. Hmm. lambo bi dinaa am. mais avant ngay gis ndam lu tax gisoo ko corona bi. non xaaral mu wax yow beneen affaire yi. Hmm. Macky Sall waxu kopro ñoom bañu teg combat bi. Hmm. mais dafa teg avec condition. mais kii Gaston moo bëggu condition boobu. kenn du dugg ci esta huit kilo carrément. kenn du dugg. mais loolu bëggu ko. loolu arrangé wul problème. voilà comme problème du ci président. est que yaay comprend mais combat bi dinaa dem ba am. dina am dina am combat bi